yi dalee nag jàmm ci xibaar digg bëccëg gi fii ci la première chaîne de télé urbaine du Sénégal la Sen TV li gën a fës ci boppu xibaar yi bokk na ci tribunal bu Ndakaaru lu def waxulu Aïda Njàmbat ndiki tey foofee ndax nag atte bari nañ fa lool ba ca gënoon a fës di bu Aïda Ndiongo ak ñi nga xam ne ñoom lañ tuumaal ca plan jaxaay daal di jag euh, jalgati alal ba nga xam ne moom la ñu war a tabaxee kër yéenu ak jagale woon askan wala ru ba euh, jamono ji dafa mel ne atte ba dañ koo dàq ba euh, jëmi jamono daañu fa fekki en direct suñu ndaw di Abdoul Aziz Sow waaye nag ci tribunal bu Ndakaaru boobee duñ fa sori xam ngeen ni El Amadou Sall nga xam ne ni ki démb wool nañ ko ci section recherche ba nekk ca Colobane ni ki tey xamle woon ni dañ ko jannale ak procureur moom mi daañu xam ndax am nga ci tribunal am déet daañu waxit ci bàcc séance bi nga xam ne ni ki démb dafa amul retour de parquet ni ki tey it mu waroon janwaat ak procureur ngir lañ ko doon tuumaal ci dafa doon far for yenn ci ay nervi bëggoon leen kon fay xaalis ngir ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars bés ba nga xam ne ca la ñuy joxe daan ba ci mbiruk atte Karim Meïssa Wade ñu daal di taal réewum Sénégal mbokk yi tribunal kon moom moo cay gën a fës ndax itam ca Pikine daañu fa dem xam ngeen ni foofee maire bu jidda caaroy kaw di Cheikh Dieng ak nga ne moom la dénk wàllug jaww ji di ko ci moom ñoom it jamono ji ñu ngi ci commissariat central la ko waral moo dañ leen tuumaal ñoom it nit ki bàcc seras ak ñeneen ni taal réew mi gannaaw atek Karim Meïssa Wade wàllug ceeb daañu ci waxtaanee ndax ñu yëngu ci wàllu wi yëngu nañ gouvernement bi war na xamle àjjuma ji liste officielle ñi nga xam ne ñooy jëlee ceeb bitim réew andi ko fi ci réewum Sénégal am tur yoo xam ni baaxoo woon na leen ca gis te gisuñu leen ca Moustapha Fall bi ñu joxte ni bokkul ca boobu la liste xamle na ne àjjuma incha allah bu ca nekkul dina yëkkati ay kàddoom wane naqaram daañu teewlu kenn ci waa UNACOIS jàppoo ñu waat ni mbir mi ci yoon lañ ko doxal ci micro Fabrice Ngema lay doon ci biir xibaar yi mbokk yi bu tàqat ne lii lu nu ci wàllu xibaar ci pàcc bu njëkk mi dañuy daal di sóobu ci ñaareelu pàcc mi ñaari ponk dong lay doon li ci yéene kaay di ko ndar képp laata loolu dañu waxtaane tàggat yaram soxna Falka lañ ciy àndal dal leen ak jaa jëf ci safo beeg ànd la Sen TV première chaîne de télé urbaine du Sénégal ñu koy dooree ci tribunal bu Ndakaaru xam ngeen ni tey waroon nañ fa àtte Aïda Ndiongue ndax nag dañ ko dàqoon bu fukki fan ak juróom-ñaar ni ki tey ci weeru mars bi Aïda Ndiongue ñu ko doon tuumaal lu jëm ci wàllu ko plan ci doon dafa jalgati alal ja xam ne moom la jagleeloon boobu la liggéey Abdoul Aziz diow ak ñeneen na daañu leen fa àtte ni tey ci tribunal bu Ndakaaru waaye du ñoom rek la ñu fay xaar yeneen ci ay responsable yu parti démocratique sénégalais ku ci mel ne El Amadou Sall mi nga xam ne waroon ko janale ak procureur ña ngi ko fay xaar niki noonu bàcc séras mi amoon retour de parquet niki démb kon tribunal bu Ndakaaru war a xumb lool niki tey ci euh, bëccëg bi Abdoul Aziz Sow lañ fay fekki en direct Abdoul Aziz Sow. Mantoulaye maa ngi lay fay. Aïda Ndiongo ak Atem dañu ko dàq ba jëmmi jamono waaye El Hadj Amadou Sall ak bàcc séras it fu ñu mujjee. Euh, Mantoulaye comme ni nga ko waxee noonu la amee fii ci tribunal bu Ndakaaru Aïda Ndiongo xam ne tey la waroon jàkkaarloog ak procureur procès bi nag yàggul dara ndax dafa ñëw taxaw rek ñu jël ko reporté ko ba le vingt six mars bi di ñëw maanaam ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mars la war a jàkkaarloowaat ak procureur bi moom nag euh, lu wara lu ni mel mooy tribunal mooy euh, troisième chambre bi moom moo war a àddu léegi ci dossier bi nga xamante ne mooy dossier Aïda Ndiong moom ñu koy toppee ci affaire produit phytosanitaire produit yooyu nga xamante ne ñu ngi ko loon ci affaire plan jaxaay beneen euh, acte bu fi am aussi mooy bu Euh, Bac Seras lutteur boobee nga xamante ne moo ko Amina Ngiraan euh, dañ leen a soupçonné ni dañoo jëloon dañoo dañ doon recruter ay nervi ngir rek ñu salfaañe kaaraange dëkk bi bis bi nga xamante ne mooy le 23 mars di bés bu ñuy euh, àttee kii di Karim Wade moom nag ak Aminata Ngiraan ñëw nañ fi depuis sooba léegi ñëw nañ fi waaye nag ba tey gisaguñu ki nga xam ne mooy procureur ndax ñoom retour de parquet lañ amoon mais gu guñoo procureur bi kenn seen avocat la ñu jege ku mu tudd Abdou Diagne Modou Diagne Kane moom nag xamal nañu ni kii di euh, anam di euh, Euh, Bathie Seras lutteur Bobak ak Aminata dortes njortees na ni dossier bi dinañ ko dinañ ko djébal juge d'instruction waaye ba fu mu nekk nii rek ban cabinet moy topoto bi nga xamantene moy euh, instruction instruction lé jëm ci dossier Bathie Seras ak Aminata Ngiraan lu jëm ci walu benen benen benen bi di euh, maître Amadou Sall mom nak ñu ko fay xaarandi fii ci tribunal mu Ndakaaru ndax ay cadre yi nga xamantene ni won nako na ko ci mom mi di di njiitu réew mi Macky Sall waaye nag ba tey nag gisaguñ ko fii ñu ngi ko fee xaarane ba tey euh, ñu bëri ñëwoon nañ nag di xaar moom mi nga xamante ne moom maître amul Sall waaye ba tey dëgg ko fi tànkam mantulaay lii lañ mën a wax ci euh, atte yi nga xamante ne lañ war a amal fii ci tribunal Dakar Abdou Aziz teewaloon fi seen yi Abdul Aziz Sow ñi ngi lay jaajëfal bu baaxa baaxa juñu ko ko bàcc séras niki nonu Aminata Ngiraan ñanga ci ca euh, kaaf gu nekk foofee ci tribunal bu Dakar ñoom lañu leen di toppee kon bokku na ci di recruter yenn ci ay nervi ngir lëmbe rew mi ñaaf ki fa ak ñett ci wéru mars bëss ba nga xamni ni ci lañu wara joxé daan bi ñu war a ci Karim Maysa Wad ñi nga xamni nak ñoy jégué jege ñaale bàcc seeraas na lo retour de parc bi mu am niki dem ndax nañu def lo xamni yoon war na ko mëna téggé loxo dañuy teewlu kenn ci séras yi gi Aliou procureur bon dugg na ci kaaf bi gis ko wax ak mom mais dafa am day bénéficier de retour de parquet mom la dem day dem euh, parquet fi police centrale bu démé fo ba démé bu ñëwee après ñu bon ci la koy dogu entendre ñu xam légui nan la ba xam ndax dañ koy bay ba am ñu koy libéré ba xam ndax leneen mom mo ci top quoi. ñu koy topé du dar leneen dañ leen Ablaye Wade ko Ablaye Wade ko jox xaliss pour que mu mu euh, ñu bari ñi ñu ngi nan da ko jox xaliss pour mu jëma euh, pour mu recruter ay nit. pour euh, datu 23 datu 23 mars pour projet euh, procès Karim Wade bi ñu aussi tam ñeneen ñi nga naan dañ ko dañ ko dañ ko jox xaalis pour que mu sabote procès Karim Wade bu 23 mars waa ji dafa mën a sabote ay projet Karim Wade xanaa kon réew mi amatul amatul sécurité du bàcc El Hadj Amadou Sall wala Aminata Ngiraan rek lañ teg loxo euh, maire bu Djida euh, Thiaroye Kao it Cheikh Dieng teg nañ ko loxo ni ki démb euh, dañoo fekk ca maire bi nag yenn ci lool loolee tax nag ñu joxte ni kon dañu bëgg taal réew mi ñoom it du moom rek lañ teg loxo it ni ki noonu ko woweroon wàllu ko commission environnement di wàllu ko jaww ji ca boobule maire teg nañ ko loxo ni tey kon war nañu leen jébbal procureur dañ ci ànd ak en direct Younoussa Baldé suñu ndaw la nekk ca diwaanu Pikine ba xam nag mbir yëpp fu ñu mujjee Younoussa maa ngi lay nuyu Younoussa Baldé. oui Mantoula Thioub Ndoye. Euh, Younoussa ndax Cheikh Dieng ak kañu toftal ci moom yor wàllug environnement jébbal nañ leen procureur wala ba tey ñu ngi ci commissariat central. Oh, voilà Mantoula Thioub Ndoye jàppal ni rek ci dernière information yi ñu jot a jot nag euh, kii di docteur Cheikh nekk maire bu commune d' arrondissement commune bu Djiddah Thiaroye Kaw. ak Adji Koura Kane Adji Koura Ka di présidente commission environnement ci boobu le mairie de jëlee nañ leen ci commissariat central bu Guédiawaye euh, yóbbu leen ci commissariat central bu Ndakaaru xëy na nag ngir ñu jébbal leen procureur de la république euh, loolooy information yo mujjee ruuse fii ci département bu Pikine lu jëm ci wàllu docteur Cheikh Dieng ak Adji Koura ñu jàpp rek ñoom ñi police njort na ni rek ñu ngi lal ay plan euh, ngir def ngir def ay trouble euh, à l'ordre public fii ci banlieue bu Ndakaaru ndaxte nag ni ki démb police def na benn perquisition ci commune bu Djiddah Thiaroye Kaw ci institution municipale bi fekk na foofu ay ay téeméeri téeméeri pëna Euh, looloo waral nag Cheikh ñu convoqué ko moom ak présidente commission environnement bi euh, ñoom saa démb ci garage bi la ñu nekkoon foofu ci commissariat central bu géej waaye foofu la ñu fanaan leneen ñi ñu jàpp nii rek ba ñu sukkandikoo ci kaddu deuxième adjoint mairie bu Djiddah Thiaroye Kao euh, ñoom moom te nee na libéraux yi ñu ngi organisé wu daanaka dañuy amal benn réunion d'urgence ak benn conseil municipal Euh, ngir statuer rek yan plan la ñuy lal ngir apporter riposte bi ndax ndaxte jàpp nañu euh, li ni mel lii yëpp di ay xoqotaan dong la nañ ko ba ñaawlu fu mu mënta yemantu laa ci gundóor yi dal ci kon Cheikh Dieng ak kañ toftal ci moom ñu teg leen loxo jamono ji wax na ko ñu ngi ci commissariat central bi nekk fi ci Ndakaaru xam naa du ñàkk fi ngoon daañu leen jébbal euh, procureur ci wàllu yoon la ñuy des ba tey ak tey ki nga xam ni mi ngi mel ni tulleeg maa la ci réewum Sénégal sëriñ Assane Mbacke ca diwaanu Touba it ki démb kon jébbal nañ ko procureur daal di koy nag làq ca kaso ba nekk ca diwaanu Diourbel ni ki tey kon yenn ci ay jege ñaaleem xëyoon nañ euh, di euh, dem yàq kër sëriñ Moustapha kër Moustapha Cissé Lo di député bi nekk foofee ca Ndam waaye nag mujjuta antu ndax takk der yaa ca teg loxo lu ci mënti am daal yenn ci ay fenêtre ak yenn ci ay bagage jotoon ko faa caxat caxatee ba jot fa sax taalib na mbir ba nag antuwul nañu ko sàkkoo woon li nga xam ne nag kon moom moo di sëriñ yu ndaw ya nekk ci diwaan ak Touba taxawal nañu seenu collectif nañu daañu ci yem daañu fekki kon sëriñ Assane Mbacke Ateex ndax nag kon fas nañu yéen def seen kéem talaay kàttan ba génne ko ci kaso boo xam ne làq nañ ko ko moom Serigne Assane Mbacke kon daañu leen toppal boobule xibaar ak suñu ndaw ki nga xam ne ni kon ma nga ñu nekkal ca diwaanu Touba Mbacke di Abdoulaye Diagne. Ah, xibaar yi niki tey ci suba ba tey moom ma di jàpp yi nga xam ne nii bari na lool ci réewum Sénégal mu mel ni gouvernement bi nuru na ko tiit tiit atte bi nga xam ne nii war na joxe verdict ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars mu jëm ci atte may sa Wade lan moo xoqatal gouvernement bu Sénégal ba it ku yëngu rek mu làq la jant bi mbaam mbir mi fa muy mujjee dina neex li lépp kon moo soxal njàngat li nga xam ni di baa defal nañu ko ci. lan la nguur gi di daw bay daanu ay fana ngi nii régime bi ak ay matuwaayam mel ni oto bu amul frein di jàpp rek Aminata Ngiraan El Hadj Amadou Sall Cheikh Dieng Mbaye Ngaraaf list bi sax commencé gudd lool ñi ñuy jàpp ñépp nag lenn lañ bokk di seen PDS su fekkee ne sax li ñuy topp ñenn ñi wuute na ak li ñuy topp ñeneen ñi waaye loo ci mën a gis euh, mooy yoon wi nguur gi jël euh, baaxul dara te sax dafa indi ak tiitaange ci askan wi ñu bari ndax euh, dañoo jël ne sécurité la ñuy jiital moo tax ñu jàpp ñen ñi waaye tey li ñu gis mooy lu bari lu ñuy wax ak di ko teg ci ñenn ñi gisaguñ ci dara nguur gi nag kon jot na mu indil askan wi la nga xam ne ne moom la wax ne moom lay topp ñu mel ni ba ci seeraas ak ñeneen ñi ànd ak moom sooy seet ba seet sax yoon wi nguur gi jël la désordre lay gën a indi ci réew mi ndax askan wi ku nekk a ngi laajte fii ak 23 mars lan mooy xew ne lu mën a xew nguur gi tey jile ak jàpp yim commencé jàpp ci waa PDS yi ak ñu leen jegeek ñu ànd ak ñoom du def dara lu dul gën a tengal mbir yi ndax fekk nit yi mereem ne ko dangaa dajale ay pneu tax nga yóbbu police li tax nag askan wi di xeeb justice bi ci seen doxalin la ndax ñoom ñooy jàpp ñooy tëj ñooy xool heure bu leen neex neex ñu jàpp wala heure bu leen neex ñu woo gis nañ ne ñoom ñi fi nekk tey jile ci nguur gi démb amul luñ fi daawul wax di ko teg ci régime bi fi nekkoon ak ñi ko doon incarné li leer mooy fen yi bonoon démb mënul baax tey benn yoon comme dëgg gi baaxoon démb mënul bon tey a ci xibaar yi dañuy àddu jëmale ci leneen mu di wàllu ceeb bi nga xam ne nii nguuru Sénégal dogu ci ne ne dina mat fii ci réew mi ba duñ ko jéggaani fekk atum 2017 coow loolee moo ne day kon ceeb boobee moo ne tàmbali na indi ay xëccoo fii ci réewum Sénégal ndax dafa am liste boo xam ne war nañ ko xamlee mu di ñu góor gi tabb ngir ñu war a jële ceeb bitim réew andi ko fii ci réew réewum senegal ñu bari nemmeeku woon ni bari na ci tur ñoo xam ne siiwoon nañ ci lool ci andi ceeb te moom day seeni tur feeñul ci boobule liste ñi nga xam ne ñooy waa UNAC waa jàppo jàpp nañ ni kon seen lëkkaloo nguuru Sénégal ah, ci anam wu tey ah, dal xel la ñu daal di amal yooyu le amu ci nag kon mbiccak mbaalo tey it amu ci boddi konte kenn ñooñu war a jël daal daal dinañ leen di jël ca mbir ma képp koo xam ne jëluñ ca dafa mel ni la ñu laajoon ci ay critères da ko caa matalewul dañ ci teewlu Ibrahima Lo bu UNACOIS jàppoo ci micro Fabrice Ngema lañu weesu mbooleem ku nekkoon ci importation bi même su fekkoon dafa importé woon 1 pour cent wala 2 pour cent sax dugg na ñëpp dugal nañ leen xam nga ki bàyyi importation wala importé tul nga po bëgg koo dugal ci importation boo xam ne ndax wax naa la ko léegi nii ceeb bi ñuy importé dafa ñëw complété ah li ñu béy ci réew mi maanaam bu fekkente ne ñun am nañu cinq cent tonnes riz blanc moom la ñuy ñaan ci 2015 bi 500 hein? 000 tonnes vous dañuy importer 500 000 tonnes pour compléter ko mu 1 million de consommation nette su que que jël légui par exemple sur le 1 million 500 euh, 000 euh, tonnes bobu mu am 50 000 tonnes wala 100 000 tonnes te mënu ko importer su pas day créer problème nga xam ne mooy Ibrahima Lo bu UNACOIS jàkko moo jàppo moo doon joxe xalaatam léegi mbir ma nag sore na lool ak luy jeex ndax niki aljuma ji Moustapha Fall mi nga xam ni bokk na ci tur yu gën a mag ñiy jëlee ceeb bitim réew di ko andi fii ci réewum Sénégal xam ne ni bës bu liste boobee génne di aljuma ji bu soobee suñu borom. dina àddu jëmale ci mbir mi te it kon turam moom ñun te ni nekk ci dina wax lépp loo xam ne naqaram la incha allah ba àjjuma lay doon. dañuy wax ci leneen mu di coowal suuf xam nga ni yëngal na fane yëpp Parcelles Assainies mu dox diggante maire ba ak ñi nga xam ne ni moom moo di benn promoteur euh, privé di euh, Takofal meer ba di euh, Moussa Sini du bàyyi mbir mu mu sedd ndax lu toll ci fukk ak benn junni mètre carré la suuf sa daal di wund teyit kon askanu Parcelles Assainies moom ñoo ko moom du bàyyi kenn mu ko jël di ko def moomeelu boppam Moussa Sy maire ba di ci dem ba ci wo nguurug Sénégal ci ñu ñew jappalé ko ci ciolo lé ndax nak buñu mayul dañu ñak bobu le terrain te it moom jàpp na dina ci xeex ba fu dolem yam ñu teewlu ay kàddu ko Moussa Sy. est responsable avec un grand R su ma ko mënee wax noonu pour moi l'État est responsable de la situation muy état bi fi nekkoon ak président Wade bi nga xam ne moo waroon terminer processus bi parce que moom moo tàmbali benn processus dem ba ci biir gis ne ah lii kat jaaduwul inspection générale d' état nee na jaaduwul nañ ko changé ba pare nag jël ay këyit jox ma ne ma en attendant pour nous bloquer processus parce que le temps de le une attribution le c'est pour wane ni léegi ñu defoon baaxul Je veux attribution définitive signé directeur de domaine monsieur Max Vincent Max Didi def enquête Sidi Diakhaté publier au presse je vais ñëwaat un rapport inspection générale d'État un inspection général d'État suréné actuel ministre du budget Brimo Mangara entendre moi pendant 11 mois mu vais def enquête donc l'autre, du l'État. état

ñu àddu jëmale ci leneen mu di euh, jeune chambre internationale ñi nga xam ne nag ni ki amal nañ seen nag ubbi teg activité euh, ci noonu sax bureau bu yees bi xam ne na dina def kénta laay kàtt nag ba dugal ndaw yi bu baax a baax ci liggéey lu jëmale euh, raw réew mi kanam daañu waxtaane lu jëm ci wàllu leadership ndax nag neenu ndaw yi mën nañ jitee ni ki mag yi niñ ko mënee te it nag wàllu justice sociale daañu def seen kémta laay kàtt din ñoo nit ba ñu gis leen ci ni ki tey la yëkkati yile kàddu ci kanam suñu ndaw ji Alassane Balde man may Sénégal di slogan bi nga xamante ni jeune chambre internationale fas ko rek euh, taxawé ngir gën ko jëmmal yéne bu ni mel nak euh, président bu yees bi nga xamante ni moom lañ ci kaw GCA euh, date koy am. ci biir amna sensibilisation par rapport ak civisme bi protection environnement bi santé publique bi nga xamné ñu ci def lu bari semaine bi weesu rek.

ba pare di jàppale tamit seeni communauté. apparent wu boobule manifestation nag daal di rafetlu liggéeyu kuréel boobule ndax jàpp ne daal ci luy gën a yokk xarañte ndaw ñi. am na njëriñ ah pour pour les jeunes en tout cas qui rentrent dans la jeune chambre daf leen jox benn benn benn motivation benn audace ak benn aura boo xam ne en tout cas dinañ mën a ëllëg taxaw ba. Euh, taxaw seen réew pour dimbali seen réew pour jàppale seen réew. bureau bu yees bi nga xamante ni jot nañu ko tàbb ci bopp gis yee nag ñoom fas yéene rek taxaw tembe ngir gën a kantanal néew ju doole yi ne sax ay action lu jëm ci jàppal ma jàpp daañ ko amal ci fan ñu demal ngir gën a taxaw askan bi nga xamee ni dañoo daal di néew doole. jërëjëf Alassane Balde dañuy ñaari soobu si ñaareelu pàccu xibaar yi dañ koy dooree ak tàggat yaram soxna Falkan soxna Falkan maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, soxna euh, euh, lépp loo xam ni it mooy matukaay yu mujj ngir sunu gaynde am ndam ci lañ nekk jamono ji. ndaxte dañoo gis ni gaynde yu ndaw yu amagul ñaar fukki at ñoom nag naam qualifié nañu ci demi finale yi waaye jafe-jafe ñu nemmeeku ci seen wàllu défense ba tax saa su nekk rek ku ci nekk sa xam-xam màcc ci yan ci yëy yàb bi ne ñoom ñi ngi ci di amal ab liggéey liggéey boo xamante ne si xëy na ñoom am nañ ci yaakaar ni dina mucc ayib ne ñoom naam jàll nañu ci ñu ngi ci demi-finale yi ñoom seen xel ak seen xol teg nañ ko feneen fu gën a sori Malick Daaf euh, moo topp ci ki la ñuy tàggat euh, di Joseph Koto kaddu yi mu bàccee ngi nii ñu teew lay kàddoo. dinañ gën a dalal xale yi encore waxtaan ak ñoom aussi xamal leen beneen yoon. de préférence ñun ñu jiitu moo gën parce que chaque fois bu ñu jiitoo ñun ñuy dàq ci ginnaaw sport score day métti da dem ba da bàyyi ay ay dalal suñu xel yéen ngeen jàppale ñu peuple bi jàppale ñëpp jàppale ñu ñëpp jàpp ci équipe bi ndax équipe bi moomu ñu ko dañ ñu ko dénk bu ñëpp jàppee rek ku ci nekk indi sa participation xool yi ànd nekk benn yàlla mun nañ jàppale parce que je pense que xale yi am nañu motivation bi bon recadré leen waat xam naa ni ñoom ñëpp ku ci ne bëgg a gagné erreur ñu def ñu bañ ko defati tey la ñuy soxna Falkan ak ñi xam ne amagul ñaar fukki ñaar fukki at ak ñett ñooñee daañu soobu niki tey ci benn stage tey jëlee li dugg ci benn stage ñaar fukki ak juróom ci ñoom convoqué nañ leen di ko waral rekk ne tournoi éliminatoire yi jëm ci wàllu Jeux africains yi moom la ñuy waajal double confrontation war a dox suñu diggante ak Mali bu njëkk bi nag ca Bamako lay amee ñi ngi ko jàpp ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars retour bi ñi ngi ko jàpp fukki fan ak ñaar ci weeru avril bi nga xamante ne si moom la ñu mël ngi rek daal di waajal lu ñu mel gaynde yooyu nag ca tubaab jalaaw fu fee la ñuy tàggatoo sunu entraîneur bu yees bu réewum Sénégal dina xam ne list bu njëkk ni ki aljuma ji lay doon. Aliou Cissé mi jiite euh, gaynde yu Sénégal yi ajjuma lay joxe list bi nga xamante ne si dañoo war a amal ay match xarito ci ñu diggante ak Ghana ñaar fukki fan ak juróom-ñett lay doon suñu diggante ak Le Havre fanweeri fan ak benn ca France euh, lañu koy amalee Aliou Cissé moomee sax am na ay tur yoo xamante ni si jot nañu ko ci dégg waaye ñu xaarandi rek moom ba mu joxe liste bi ngir mu officiel ne ajjuma bu 10h30 lay doon ci ca Goodred du ñu daal di wax rek ci wàllu football ba tey Ligue des champions tey jile match retour yi dinañu ko amal 19h45 ba jotee ñi di waa Monaco ak waa Arsenal ñoo war a daje waaye beneen jongante bi mi ngi war a dox ci diggante Atlético ak Bayer Leverkusen gannaaw wàllu football soxna dañuy àddu jëmale ci wàllug basketball école 16 ñoom ayap jàppale na leen lu baax a baax ci wàllug jumtukaay. ayap yi mooy présidente zone 2 moom nag yóbbu na fa ay matériel loo yoo xamante ne si dafa jëm ci wàllu basket école 16 nekk ca Guédiawaye loolee yëpp ngir suqali basket bi ci foofee le reportage Mamadou Fofana. ab ndimbal gu am solo kon jëm ci wàllum jumtukaay yu ñuy jëfandikoo ci wàllum basket daal école 16 basket club nekkee fii nii ci diwaanu Guédiawaye daal di jot daal ci kii du njiitu zone de mu di ab ndimbal goo xam te ne ni nag guy gën a sukkali lépp lu jëm ci wàllum basket. te basket lii mooy tax mooy préparer relève bu suba parce que sans la petite catégorie sans la base rien ne peut se développer au sein du basket loolu moo waral ay dara ci xelam mu rafet. Nous nous ñu comme nous on a l'habitude de le faire de j'appeler les petites catégories c'est pas la première fois qu'on yu qui terrain de à travers le Sénégal di indi suñu suñu suñu suñu asaka pour le développement du basket parce que euh, après biñu ñu ba paré ba yalla def ñu jël suñu retraite suñu mission moy développer le basket à travers euh, euh, la jeunesse de ce pays. njiitu école 16 basket club nak daa du rafet lu leen mel ci noné tamit ñu dellusiwaat ci jafé jafé yi nga xam tane ni nii daal ña nga koy jankontel li ñuy jébal nekkul lu tuuti ci ñun parce que ñun ci lool mom moy suñu matériel sportif yo xam ne dañ koy jankontel chaque jour. moy amul bal amul dal ay cas social yi dañ fay bari xalé ko ci laaj 100 francs yaam ne la demal nga jënd ko nguru nga lek ko. xam nga boo ko toppee dañ naan la na bàyyi sax far comprendre yow yaa ciy mujj di ci jàpp. ci noonee nag ñu tàll loxo kilifa nguur geek bokk moomee lii ngir ñu gën a dimbali basket bi def nag ni présidente zone mi nga xam te daal moom nañu daal ndayale école 16 basket club. initiative bu rafet boobu suñu natango Ahmed Aidara daal di koy initier ci Géejawaay ñu soxla ak jàppale tamit ñi di waa Pikine basket club ne ñoom ci jamono ji dara doxu fa ne bi championnat bi ubbee ba léegi benn ndam rek la ñu amagul lépp ñoo koy defal seen bopp ba tax ñuy ci jàpp mantulaay soxna na ni jeexale tàggat yaram ak wàlluk làmb guy gi niki tey dina nekk ci open press ndaw xumb ndaw xumb lool tey jile muy tournoi si waa RDV ñoo ko amal ne tey jile bu 16h jotee ca école euh, marché bu marché Ndiarème euh, ak taskatu xibaar yi guy gi nag euh, ma fàttali leen ni tafaatin la war a dajeel naataangoom boobu sax moom ñaar fukki fan maanaam ajjuma dina daje ak taskatu xibaar yi fii ci Médina tey daal mantulaay ci bundoo jàppal fan yi ku fa dem daal di nga reetaan ba dee ndaxte guy gi moom neex rek la def jeex na xibaaru tàggat yaram yi. di nga ree ba dee te it bul diwoolu niin soxna ndax guy gi moom tàmbal na fooyee suuf sa bopp bi mu niin ak sa yaram <laughs> gisuma la mbaaw ak suuf su bari jàllale soxna Falkan ci xibaaru tàggat yaram yooyu day tax ñu soobu ci ponk bu mujj suñuy xibaar li ci yéene kaay lay doon ñu ciy ànd ak El Hadji Ahmed Aïdara résultat atte Karim Wade bi day a waatagul dee waaye réew ma yëngu na le populaire ne nguur gi kay fi mu nekk le waaw maanaam sabab lu ni mel nag nguur ga ca boppam kon dafa bëggul nag ginaar ga ca boppam kon jugee ca nen wa juddu duñ leen may ñu boofee ko fi dee déedéet ndaxte dañoo jàpp ne ne kon Abdoulaye Wade kat a daal Sénégal gi lé war ti taali la ilaha maanaam ñañ jàpp ca waa PDS ko bari na waa PDC fi mu nekk ni la nguur gi ci boppam laa lay wax ni da leen a ërtal de dox kaw le populaire ne maître El Hadji Amadou Sall nañu ko Aminata Ngiraan jàpp nañu ko Bac Seras jàpp nañu ko Cheikh Dieng jàpp nañu ko Babacar Mbaye Ngaraaf woo nañu ko termine yéene kaay ne maire jidde caaro yu kaw di Cheikh Dieng boo leen gisee ñu teg ko loxo waaw maanaam biir maire mba boppam kon la ñu ñëw fa ay yu baree bari waaye ñi nga xam ne nag ñoo waaw ñoom moom la ñuy sàkku daal mooy Abdoulaye Wade ci boppam na dikk seede na dikk wax ci li lay Aliou Ba waaw nee na ah waaw waaw parce que dañ ne Abdoulaye Wade kat moo yëkkati xaalis jox ko ba moo tax ñuy woo Abdoulaye Wade nag mu daal di wax na ñëw seede ne xaalis la jox ba ci Seras quoi pour mu recruter maanaam kon ay Samba Surabali ngir ñu dikk saboté kon ateew Karim Wade goo kay loolee du dëgg lii dëgg kay tribune yéene kaay nee ñoo ni jàppale be ya mu ca parce que maître El Amadou ya Sall ne mi le ragal la tabet la ba pare daa tële incapable ya, enquête yéene kaay glace xaar bi nga xamni kon ñu ngi koy xaar nak attew Karim Wade googee waaw ma taw bu and ak safara mo wacc ci kaw waa PDS teg loxo yu bari yi nga xamni kon ñu ngi len koy tek day ñi and ak Karim Wade mi le taay neexul de déedéet rew mi quotidien ben semaine day mo des suñ diggante ak attew Karim Wade googee ma ne la na setti ko dem ci Rëbës Abdoulaye Wade amna fa waxtu ak genn wala la lay wax ni lée moo dañuy waxtan le quotidien kay le Serigne ba laa ilaha illallah laa ilaha illallah ndakaru Moustapha Cissé Lo yoo yee nga xam ne kon la kon libération yéene kay ne Serigne Assane Mbacké waaw ko jëme de mar d'itali laa ilaha illallah <laughs> la ko termine yéene kay ne waaye convocation Serigne Assane Mbacké googee waaw yombul woon démb ci gendarme yi nekk ca Touba de déedéet ma ne ay manifestation yoo xam ne yu mitee miti la ay pono la ñu taal ca buntu gendarmerie ba laa wax grenade la crémation ya jalaa ñoo Serigne moomee waaw waaw ba muy dikk kon ca bërëb ba waajuram wu jigéen di soxna awa bu so la àndal allahu akbar te moo yéene kay ne Serigne Assane waaw teg ko loxo de waaye am beneen këru Moustapha Cissé Lo bu nekk ca ndaam waaw nit ki démb laa lay wax nii dañ koo jaxat-jaxatee yàqate nañu ko Serigne yéene kay ko may ma ma may ma ma yeggali ma ne la démb lool gis nga taawu Serigne Bara moom Serigne Fallou xalif général woon Serigne Khadim moom Serigne Abdou PDS daal ak ña ñu àndal waaw ñoom nag la ñu jàpp rek mooy nguur gi ci boppam kon ñoo tiita tiita tiit ba maara day taali jàllaa ñoo jàq nañ ma yoro fay bokk parti démocratique sénégalais nee na ragal gee soppi kan ci tànge gaa nga ca ñoom la peur a changé de camp yow réew moo xam ni kon jéggale zéro baale daal amatu fi yow am nguur goo xam ni doo d'accord mu ku la wax dëgg wax dëgg daal kenn nangootu ko ci réew ma yoro fay yemu ci waaye nee na lii yëpp nag boo leen ko gisee njeextalu nguur la ay signe la daal yuy wane ne Macky Sall ak waa këram pare nañu waa APR ak ña ñu àndal noo ne ole ñu jéem a indi nag ay tontu politique ndax yëfu politique politique leen di waaye force publique di takk der kon la jëfandikoo ngir lijjanti seeni mbiru politique waaye gis nga théâtre bii nga xam ne kon moom la ñu nekkee di tiitalaate na leen leer ni du tax mukk militant PDS yi kon dellu ginnaaw la ko ti yéene kay ne xale ya nga xam ne nag leen a jàpp kon Congo kee di waa Y'en a marre waa waaw lañ leen di tuumaal tey mooy ne dañoo bëggoon taal kon Congo Kinshasa laa ilaha illallah saboté tamit ko faux kayit bi nga xam ne nag maanaam kon ambassade bi joxe na ko lu officiel laa ngi ni le fan ak juróom-benn ci weeru février la ko jox xanaa man mii di caa dama daanaroon toppaale waaye a gaawee galo daal bokki nga xam ne kon jàpp nañ leen ca bitim réew tamit am na ci ay doomu Sénégal yoo xam ne kon ñu leen jàpp fii ci biir réew réew mi caxat-caxatee leen sonal leen teg leen loxo te ca jamono joojee kilifay Sénégal yaa ngay dangi-dangi di daw mujj nañoo juboo alhamdulilah fi amul alhamdulilah kay le quotidien yéene kaay nee mooy hôpital Abbas Ndao ndekete wàllu nju jaaj goo la Abbas Ndao dañ ko mujj soppi laa lay wax nii ay mbirum combine caxa-caxatee kon xaalis ba waral hôpital ba ca boppam kon feebar waa Corée day am na fuñ feebarloo ca pooru Ndakaaru day libération yéene kay ne groupe coréen bi dongoon dañ leen di tuumaal daal ci ay jëf yoo xam ne kon wàllu njuj njaaj ay mbirum fraude ak lu ni mel ndaxte société bi si SNCDS nga xam ne ñu ngi ko amee nag ci loxol nguuru Sénégal gi day waaw am na ci ay borom lamiñ yoo xam ne daal nee nañu nguuru Sénégal ga ca boppam kon moo continué ba léegi ni di leen ravitaillé société ma ne la groupe ci wàllum batoom bi nee ma solvant waaw réew mi quotidien ne la tam njàmbur doy na waar école ya daal la ca xale yi jigéen ñi di sol maar di taali ma ne waa Louga xale yi jigéen ya daanaka yaramu neen la ñuy def maar di taali la ilaha illallah la ilaha illallah ah waaw <laughs> alaaji Louga moom du ma fa commenté dara njàmbur Cheikh Sarr animateur Zik FM fa la dëkk Abdou Diouf Kumba dem ma dem fa dëkk kon man dem naa alaaji tëjal man mi it alaaji fa laa jógee ndax nag waala jógee na loolu Louga loolu tey damay ragal nag yow alaaji bi nga doon euh, ndagam nag ay dara karaara nga sant sax nga toxu nag jógee euh, fii Ndakaaru dem foofee yooyu jaajëf alaaji mbokk yi kon maa ngi leen jaajëfal seen ànd ak la première chaîne de télé urbaine la Sen TV fi la ñuy yem ak yéen ci xibaaru digg bëccëg yi man dinaa fi dikkaat incha allah juróom benn waxtu ay xibaar dina fi ñëwaat ci gàttal xibaar day won fii ci la première chaîne de télé urbaine du Sénégal ma leen léegi léegi Abba Yaawa ca kër yaa ngeen yendu ak jàmm